مولد خير المرسلين أصلح كلي به من لم يلد فصلحا رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منيل الارتقاء رحبت تعظيما بشهر المنتقى عليه تسليما منيل الارتقاء mawlidu xayril mursaliina aslaha kulli bihi man lam yalid fasaluha wajhu nabiyil muntaxa xat asada muhibbuhu fi abadin fasaida lil muntaqa alladi tafaaxara mudar bi baathihi mufhimu badwin wa hadar diinu nabiyi lmuntaqa faxri nidaar diinun yafuuqu man xawaahu wa yudaar rasuluna ahmadu nuuru rusuli basharahu umri bila takassuli suqtu lahu maa sarrahu min qidami wasaaqa lilmuna maa taqaddumi wajjahtu lilmuqdaari tabshiran shinin waliya wajjaha bi xayra alfunun lillahi qalbiya bihi wa jasadi abdan qadiman naajiyan min xusadi ilayhi qad quttu salaata bisalaam maa siwaahumaa wa dahdaha almalaam lillahi sukuriya alayhi abada id kawnuhu liya bihi liya bada laa rayba anna allaha lam yaxluq wala yaxluqu mithluhu maha taqawula huwa alladi almawlidu kulli aslaha bi idni fardin lam yalid fasaluha auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa jacal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida taazimuhu bisunnati yaquduna liljanna bihi izdiyaadu lminnati li muxlisin muazami mbokki jullit yi mbokki taaliba yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Maolana Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di teg ci nuyoo bu màgg boobu Serigne Modou Mende mi nga xamante ni moom moo nekk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima gi di ko ñaanal moom tamit ni ñuy ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ak wér ku gis jataay bii mel na ni am na lu sa xel di njëkk a dem ku ne xam na ni buñ jugee ci màggal gi rek xel yëpp li muy daj mooy waajal màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag buñ ko tuddee ci àdduna bi ku tudd Touba tudd Njaareem danga tudd cees ndax loolu liggéey boo xamante ni liggéey bu rëy la boo xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina moo ko liggéey ba mu egsi ci loxo yi nga xamante ni moom ngeen gis ñu nekk ci biir jataay bi loolu nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko cosaanoon muy diwaan lu manaxilu saafiya ci njiital Serigne si la waaye bi nga xamante ni yàlla dogal nañu di ko taxawal ay at yu bari lool màggal ko ci sunna ni nga xamante ni moom la ko sëriñ bi santaane muy dox di gën di màgg di gën di dëppoo ak sunna ba egsi ci loxo yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sama ndeyjoor ak sama càmmoñ tàmbalee ko ci daayira Tazawudu Subaan ci njiital Serigne Boubacar Diop ak Tazawudu Subaan bu Serigne Mamor Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Murtada te Serigne ñaar Touré nekk ca bopp ba naka noon tamit daayira Makaarimul Axlaax bu Serigne Abdul Karim Mbacke ibnu Cheikh Mahamadul Fadal Serigne Moussa Dieng mi nga xamante ni moom moo nekk ca bopp ba ak Soxna Daba Ndiaye ak daayira Safinatul Amaan bi nga xamante ni Serigne Papa Ndiaye ak mboolem mbokk yi nga xamante ni ñoom la ko àndal. ñooñu nag mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak diwaanu Manahilu Safia di def liggéey bi nga xamante ni ni ko sëriñ bi diglee mooy nañ fas yéenee màggal ci sunna màggal ci sunna nag suñ ko waxee rek kon xam ne ni sëriñ bi kon moo wax ni nii lañ war a gàmmoo mooy gàmm gi nañ koy dëppale ak sunna loolu nag diiru bañ ko waxee ak léegi ndigal la ba mu rotee rek tàmbalee ko ca sëriñ Sidi Muxtaar radiyallahu anhu yàlla nañ ko yàlla fayal joxe woon ndigal nañuy gàmmoo nii booba ci la comité bii nga xamante ni moom moo gàmmu gi ànd di màggal waaye di màggal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ni nga xamante ni noonu lañ koy defee ci Touba di ko defee Njaareem waaye di ko defee ca Daarul Muxti nga xamante ni moom mooy cosaanal gàmmu loolu nag ni muy amee duñ ci sori dañuy jébbal kàddu gi kii nga xamante ni moom mooy jëwriñu mbooloo mi muy Serigne Cheikh moom dana woo mboolem kilifay waa dëkk bi su noppee ñu jox Serigne Malick Diop mi nga xamante ni moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy commission culturelle bi te Serigne Aliou Guèye nekk ca bopp ba su noppee moom mu jëbbal kàddu gi Serigne basiru Dieng mi nga xamante ni moom liggéey bii ñuy def moo fi taamu di woo mboolem daayira yi ak mboolem ñi nga xamante ni ñoom lañu ko seqal kon Serigne Cheikh la ñuy jébbal kàddu gi. kon sëriñ Cheikh bismillah mawlidu xayril mursalin aslaha kulli bihi man lam yalid fasaluha aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julliti mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu leen baal di ñaan suñu borom boo leen ñu jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha ibnu Cheikh Amadou Bassir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu sëñ Tuubaa gépp di nuyu sëñ Modou Mbenn Fall di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi te wér ak njabootu maam Cheikh Ibra Fall gépp waa diwaanu mën naa lissaaf yi ñooy woote gàmm fii pencu maam Cheikh Ibra di woo Serigne Moustapha Lo nga xam mooy borom dëkk bi. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi wér ak njabootu sëñ Babacar Lo gépp di woo ki nga xam ne mooy suñu ilimaani dëkk bi ñu jiital sëñ Fallou buñ ko tuddee ma leen tudd nañ ilimaan yëpp di woo njabootu maam Cheikh Fall gi nekk fii ñu tudd sëñ Moussa Fall ak sëñ Cheikh Ngunda ak mboola njabootu maam Cheikh Fall gépp bàyyiwuñ kenn di woo daare alxuraan yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te ngànk ko di jiital ci nuyoo bi sëñ Mbacke Bousso nga xam bu ñu ko tuddee rek tudd nañu waa daara yëpp di woo nag daayira yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi te boole seen bopp wutal ko aw tur lu mel ne kuréel safar ci njiital sëñ Boubacar Diop ñu ngi leen di woo di woo kuréel làmp ci njiital sëriñ am di Touba Ndiaye ko ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér di woo daayira yi nga xam ñoo nekk ci biir dëkk bi di woo kilifa yi dëkk bi yëpp ak ak ak góor jigéen mag a ndaw bàyyiwuñ kenn képp koo xam yaa ngi yeewoo ci dëkk bi rek ñu ngi lay woo ci gàmmu gi fas yéene ko ànd ak yéen niñ ko daan defee ak suñu mbokk taal bi nga xam ne ñetti kuréel la teg di ko jàng bu bët set njàng moo xam ne maras na koo dégg fu ne maras na ko teg fu ne mu neex lool ba kenn du bëgg ñu bàyyi ba nga xam ne daanaka at mu nekk dañuy dañuy kenn du bëgg ñu bàyyi dañuy toog ba huit kenn du ñibbi loolu moom ku ñu fii di nga ko gis njàng mu set ak yar ak jàng alxuraan jàng xasida ñu yor course ba bët set amul wax amul tàggaat kenn ku jëm yonent Yàlla Muhammad nga xam moom Sëñ Tuubaa di woy bi am li am moom lañ ko amal moo tax ñu woo mboolem waa dëkk bi ñu ngi soñ ñëpp nag bàyyi ñu kenn góor jigéen moom mag ak ndaw wasalaamu aleykum wa rahmatullah mawlidu waaw jërëjëf sëriñ Cheikh Sylla jëwrin di ko sant ci kàddu yu am solo yooyu noonu ma ko waxee rek di woo mbooleem dawaayir yi nga xamante ni ay mbooloo yu mag lañ te ay mboolooy mbooloo aju seen ginnaaw mooy mboolooy fédération yi noonu mu ko tuddee ci kuréel safar ak kuréel làmp waaye tamit di woo Majmahun Nurayni ki nga xamante ni dañ leen a gën a baaxoo ci élèves ak étudiants yi ci njiital Serigne Salihu Fall nga xamante ni ñun ak ñoom ñu seq liggéey bi waaye di ci woo tamit ma Majmahun Nurayni nga xamante ni Serigne Khadim Fall moom moo ko jiite. waaye naka noonu tamit di woo ma Majmahun Nurayni nga xamante ni Serigne Ndiaye Guèye moom moo ko jiite waaye suñu tuddee foofu nag suñu xel dana daj suñu jàmbaar ji Serigne Salihu Touré nga xamante ni bokk ci jëwriñu Cees yi ak mboolem waa këram ñoo ngi leen di woo ci biss bi nga xamante ni moom la ñuy amal waaye ni dañoo nekk Cees te rawatina nekk ci Medina Fall ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn waaye mboolem ku di mboolem diine ndax màggal gu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag képp ku di jullit rek am nga ci aw laaj kon ñoo ngi woo ku di jullit waaye nag di woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa dëkk bi rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Medina Fall te ku tudd gàmmu ni ma ko waxee sànq tudd pencu maam Cheikh Ibrahima Fall loolu nag kon ñoo ngi woo waajur yi ñoo ngi woo dëkkandoo yi ñoo ngi woo ñëpp loolu nag ni muy tëddee. dañuy jëbbal kàddu gi Serigne Malick Diop mi nga xamante ni moom moo yor wàllu programme bi su ko defee mu dikk ak ñun ci programme bi kon Serigne Malick bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di jiital ci suñu nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yokk ak wéram te bàyyi ko ci. kanamu yoon wi ba ca kanam kanam naka noonu di nuyu Serigne Modou Menda Fall nga xamante ni moo di kilifa barab gii nga xamante ne fi lañ toog muy penc maam Cheikh Ibrahima moom it di ko ñaanal suñu borom may ko wér ak gudd fan mu yàgg ci kanamu njaboot gi. di jaajëfal sëriñ May ci kàddu yi am solo yi su ko defee xam naa ne dañuy rek dugg ci programme bi nga xamante ni moom la amal ci diiru wàccaayu gàmm gi ba ca bisu gàmm gi. su ko defee it programme bi ni muy tëddee mooy dafay tàmbali ci ay bis yoo xamante ne dañ koy amal ngir waajale ko gàmm gi bis yooyu nag e, dañ cee jàpp lu ci mel ni guddi àjjuma gii di ñëw muy alxamis bii di ñëw ci guddi ñu fas yéene koo defee fii ci péncum maam Cheikh Ibra fas yéene cee ànd ak ay kuréeli xasida yoo xamante ni dañoo nekk ci biir liggéey bi waaye it am ci ay kuréel yoo xamante ni dinañ ànd ak ñun ci liggéey bi day mel ni suñ ci tuddee kuréel nuuru daare ni bële nga xamante ni moo nekk ci lycée Medina Fall bi eh, ak eh, kuréel gi nga xamante ni mooy Fatul Xafaar eh, war cee ànd ak ñoom ci guddi googu ak fulkul fulkul masuuf ak kuréel yi nga xamante ni ñooy kuréel yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak ñun ci liggéey bi lu ci mel ni kuréel Makarimal Axla kuréel Tasawudu Suwaan ak Tasawudu Suwaan Sëriñ Mamor ak Safinatu Aman day mel ni ñaari guddi yooyu noonu lañ ko xaajalee eh, su ko defee àjjuma ji tamit dina am njàngum kuréel waaye dina am waxtaan woo xamante ni sëriñ May Jeng mii ak boroom xam-xam yu mel ni moom lu ci mel ni sëriñ Xaadim Jeng ñoom fas yéene nañ cee ànd ci waxtaan woo xamante ni dañ koy waajale gàmm gi ginnaaw loolu it bisu gàmm gi comme ni programme bi daan tëddee rek noonu lay tëddee sunu xëyee dinañ tàmbali ci animation ak waajal barab bi. waaye suñ demee ba waxtu timis ci la ñuy tàmbali liggéey bi ginnaaw suñu jullee timis ba pare nañ ko tàmbalee ci njàngum arxuraan maanaam wàcc fi ay kaamil ginnaaw loolu it dinañ ànd ak ay kuréel yoo xamante ni kuréelu maanaam daara yi nga xamante ne moom lañ tudd sànq ñoom lay doon muy ay kuréel yi tuut tànk wala muy ay kuréel deux yoo xamante ne ñooy tàmbali liggéey bi waaye dinañ ci ànd ak yi tamit ay kuréel invité yoo xamante ni fas yéene nañoo ñëw ànd ak ñun ba keroog waxtu 22h di jot nga xamante ni ci la ñuy tàmbali waxtaan wi ñu war cee ànd ak sunu mag sunu jëwriñ sëriñ Moussa wàdd mu fas ne ànd ak ñun ci waxtaan wi ba jamonoy min wi su ko defee ci la njàngum xasida mi di tàmbali njàngum xasida mi tamit niñ ko daan dundale rek noonu lañ koy dundalee ci diggante ñetti kuréel yi nga xamante ni sëriñ bi moo ko santaane woon genn kuréel gi di jàng jës bu gi ci des di jàng muwaay bu gi des di jàng muxaddimaat noonu lañ ko séddalee su ko defee ren nag kuréel Tësëwdu Subaan bi nga xamante ni mooy Tësëwdu Subaan suñ maam Moor ñoom lañ féetale jës bu bi kuréel Tësëwdu Subaan bu sëriñ Saaliw ñoom la ñu féetalee muxaddimaat bi su ko defee kuréel Makaarimal Axlaa feggoo ceeg kuréel Safinatu Amaan ñoom ñooy jàng mooy bi su ko defee sëriñ Ousmane Diop mi nga xamante ni moom lañ yàgg àndal guddi gi moom mooy jàng barzan bi su ko defee noonu lañ ko fas yéenee ànd ba fajar ginnaaw su xasida yooyu wàccee it am nañ yéene yokk ci xasida yi nga xamante ne ay xasida yu mawlud la ba keroog rek ñuy julli fajar su ko defee ñu dajale kuréel yëpp def benn kuréel sélection daat koy def ñaan gi kon loolu ci wàllu programme culturel bi ci njiital Serigne Ali Diop noonu lay tëddee kon su ko defee ñu ngi ciy woo ñëpp di jaajëfal ñëpp it ci taxawaay bi nga xamante ne moom lañ ci daan am ñi nga xamante ne ñooy jànkatu durus yi xasida yi nga xamante ne daanaka su weesoo kuréel gi ñoom ñooy teeral jot ñooy ñooy taaral jotaay bi ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax ndax ñoom it wax dëgg yàlla maanaam pàcc bu yaatoo yaatu lañ am ci gàmm gi su ko defee it xam naa li ci des ci wàllu leeral gi dañ ko bàyyi ak Serigne Bassirou mu woo daayira yi ci turu diwaan waaye tamit leeral li nga xamante ni mooy am ci jotaay bi yëpp ci yi nga xamante ni fàggu nañ ko ngir waajale ko gan yooyu nga xamante ni dañoo fas yéene ànd ak ñun ci guddi yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. muhammadin anil aadi wal aza wa jannati mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare nuyoo bi yit ñoo ngi ciy jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu boroom yàggal ko fi lool te dolli ko ay wér di nuyu yit jéeglu nu maam ji nga xamante ni moo toog jataayam di sëriñ am ni Modou di ko ñaanal moom suñu borom yàggal ko fi lool te wér nuyu it suñu jëwriñu tedd yi nga xamante ni ñoom lañ toogal ci jataay bi jiital ci sëriñ Cheikh Sylla ak sëriñ Aliou Guèye mi nga xamante ni moo ne sama wet ak suñu mag sëriñ May Dieng ak sëriñ Malick Diop mi nga xamante ni moo yoroon kàddu gi léegi di nuyu it comité bi nga xamante ni ñoom ñooy saytu liggéey bi muy liggéeyu gàmmu gi nga xamante ni ni ko samay jëwriñ waxee rek bi mu nekkee ci loxoy ñoom sëñ Cheikh Sylla ba yàlla dogal mu egsi ci loxoy comité bi ñu am ci taxawaay mat sëkk ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ak mbooleem dayre yi nga ko àndal ni ko sëñ Malick waxe sànq daayira Tazawudu Subaan te sëriñ Boubacar Diop ne ca bopp ba ñi mu àndal ñëpp moo xam góor la moo xam jigéen la ñu ngi leen di fàttali bis bi taxawaay biñ ci daan am ci njàngum xasida ak njàngum alxuraan ñu ngi leen koy fàttali bu baax niki noonu it noonu la ñuy woowee daayira safinatu amaan te suñu baay nduur ak sëñ Papa ne ca booba ñoom ñu ngi leen koy fàttali taxawaay yi ci daan am yëpp niki noonu it daayira Tazawudu Subaan bu sëriñ Mamor te suñu baay ci Yaasin Diop ak sëriñ Naar Touré ne ca booba ñoom ñu ngi leen koy fàttali bu baax a baax a baax a baax di ko fàttali it daayira Makaarimul bu Serigne Abdou Karim Mbacke te sunu waajur soxna Daba Ndiaye di jàmbaar lool ci bis bi at mu jot mu fi indi ay xéewal yaatu moom it ñu ngi koy fàttali bis bi ak sunu jëwriñ sëñ Moussa Dieng niki noonu it di ko fàttali dëkk bi yëpp ndax liggéey bi toll na foo xamante ni doonatul ay daayira dëkk bi yëpp ñooy àndandoo di ko def bu bis bi egsee kenn ku nekk day wut ay xewalam di ko indi foo taxaw rek ñu yëkkat ay xéewal la ko jox loolu it ñu ngi leen koy sante bu baax a baax a baax di xam leen loolukat boroom guddi gi donc moo tax ñu koy def ñu ngi leen di fàttali it ni ñu ko daan defee ren jii gën nañoo taaral liggéey bi ndax ku fi ñëwoon daaw yëgoon nga ni amoon na tàngoor waaye loolu lépp komité bi ma tudd sànq fexe nañ ba bëgg koo saafara ñu ngi leen koy fàttali bu baax bëgg nañ koo saafara ci anam wut ay ngelaw yu baax dundale ko it ci ni ko sënt waa waxe waxe woon. temps tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil janna ni mu ko waxee woon noonu yëpp fas nañ ko yéenee amale noonu ci bi sukkarin aw laxamin ci xéewalu yaatoo yaat loolu lépp it comité bi fas na ci yéen a ànd ak suñu jëwlin sëñ si la ñu def ci loo xamante ni képp ku fi ñëw daal di nga dund guddi gi ci dal di nga ko dund ci jaamu yàlla ni nga ko dund it ci féex kon ñu ngi ñaan suñu borom yóbbuñu ci ak jàmm te yàggal fi sëriñ bi ba li mu yéene liggéeyal borom yëpp mu def ci lu kawe njortam wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf jërëjëf sëriñ Ousmane Diop mi doon yëkkati xasida yi ak sunu jëwriñ sëriñ Cheikh Silla ak sëriñ Malick Diop mi nga xamante ni moom moo doon jàllale programme bi ak sëriñ Bassirou mi nga xamante ni moom moo doon wooye woote ci turu comité bi noonu ñu ko waxee rek noonu lañ fas yéene bëgg ànd màggale guddi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon noo ngi ci woo mboolem ku dib jullit waaye di gën a taxaw nag noonu ko sëriñ Bachir waxe mooy bis bi sunu yéene mooy noonu ko sëriñ bi waxe ni képp koo xamante ni yëkkati nga sa alal nga def ko ci doonte ab dërëm la su ëllëgee dërëm boobu dana la jël tabale la àjjana kon ku ci def ab dërëm wala nga def ci am million ñoom rekk ñoo bokk ak pay ndax sëriñ bi moom xàmmeewul ku bari ak ku néew la li mu xam mooy borom yéene ak xol bu sell kon ñi nga xamante ni dañuy ànd ñun ñuy waa dëkk bi nga xamante ni lu ñu yëkkati rek ñoom lañ koy yëkkandeenool loolu kon ñoo ngi leen di gën a woo ci bis bi ñu xam ne lu ci waay def rek sa bopp nga ko defal ndax bis bii di guddi gàmmukat sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu moom moo ko daan defal boppam te ku ne xam na miin na ni moom moo wax ni ahyaytu mawlidan nabi min asasi wa qaada lii fawqal munaa fii talsasi asas ak talsas ku ne xam ne ne aad yu yàgg a yàgg yàgg la loolu nag noonu ko sëriñ bi daan defale boppam noonu la ko ci taalibe yi borom Tuubaa yi wuutoo kenn ku ci nekk nag jàppal ni ni nga koy defee na nga ko dëppale ak sunna noonu ko sëriñ Basir waxee mooy tanzimuhu bi sunnati kon képp ku ñëw fii ci pàkk bii nga xam ne pàkkub maam Cheikh Ibrahima Fall la mi nga xamante ni kenn mënta tudd sëriñ Tuubaa te doo ko tudd kon ñun bu ñu àndalee di fi dundal ci biir mbaar mi def nañ loo xamante ni lu gënal sëriñ bi la waaye lu gënal Cheikh Ibra la loolu nag ñoo ngi ñaan ni nga xamante ni noonu lañ ko daan àndee ak mbooleem taalibe yi mbooleem waa Cees yëpp noo ngi leen ciy woo te noonu ko sëriñ Malick waxee dana am njàngum alxuraan njàngum xasida waaye ñetti kuréel yi ak barzan bi nga xamante ni mel na ni dafay leeral dundu yonent bi sallallahu alayhi wa ñu fas yéene ko ànd ak sëriñ Ousmane Diop te am na tamit ay jataay yoo xamante ni moom mooy jataay yi nga xamante ni ñoom ñooy taaral bis bi ñu koy gàttandoo guddi gi loolu nag ñoo ngi ciy woo ñëpp loolu nag ñu koy tàmbali alxamis bi di ñëw muy guddi ajuma gi di ko defee fii ci nga xamante ni moom mooy kanamu mbaar mi di ko def ci alxamis ji ak ci ajuma ji ñoo ngi ciy woo ñëpp di ñaan daal lépp loo xamante ni def nañ ko ci wala nit yéen am na yéene def ko ci yàlla na ci làq ngërëmul sëñ Tuubaa di ñaan daal jataay bii képp koo xamante ni bëgg ko topp jataay bisub gàmmu gi ku ko bëgg a topp rek mën nga koo topp ci Majmahun Nurayni TV gi nga xamante ni moom mooy ñi nga xamante ni ci la ñuy àndal gàmmu ren gi te doon ko ànd ak ñoom ci at jiitu noonu tamit lañ koy ànd mboolem compte yi nga xamante ni moom mooy compte dawaayir yi ak ñi nga xamante ni tamit lu baax ñor na leen njàngalum Sëñ Tuubaa ñor na leen. kon ñoo ngi ci woo mboolem média bi yëpp di ci woo mboolem waa dëkk bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wajhu nabil muntaqa qad asada muhibbahu fi abadin fasaida lil muntaqa alladi tafaxara mudar bi baasihi mufhimu badwin wa hadar